mbokk yi maa ngi leen di gërëm di am mbégte ci jàkkaarloo bi may jàkkaarloo waat ak yéen ñi jiite réew mi tële puusuñu paasuñu ñu leen di xaar booba ak léegi tey jii dañu dajale lenn ci gor yi ci dëkk bi ne dañu leen di wax ana fu ñu war a jëme réew mi juróom-ñaari weer ñu koy xaar juróom-ñaari weer waa jiy daw di tekki juróom-ñaari weer muy dugg ci tunnel yi juróom-ñaari weer muy waaf nanguwul def déclaration de politique générale tey ji lañu gaaral ca jam ñaajo nee ñu mooy projet bi projet boo xam ne dañu ko jënd te ka ñëw di ko présenter ab expert privé la expert privé boobu ci fàttali rek moo doon expert bi doon xalamal Macky sàll ci PSE bi mu xalamalee Macky sàll ba mu jëli jàjjam sëriñam baax na tey jii gàddu na Sonko ak Jomay moom Victor Ndiaye li am solo mooy bisug tey bi ku ne xam na ne daanaka campagne électorale la parce que la xewoon foofu ca jam ñaajo ku ne xam na ne du vision waaye ab mascarade la woon daanaka ab xumbeel gu ñu organisé waaye yéen biir na leen ne plan buy soqali réew plan buy defar réew dee su ko roccee ci ay tiroiru cabinet dégg nañu ko sax muy junj di wax waxu Japon waaye ku ne xam na ne Japon ay nit ñu xam fa ñu jëm ay nit ñu gëm seen bopp xalaat bu ñu àndandoo maase xalaat bu ñëpp joxe seen bopp moom moo tëgg tey ji doole ji réew moomu Japon am kon li wér te mooy ñi ñu jàkkaar lool ci njublang lañu nekk ci naxe mbaay lañu nekk parce que plan bi ñu présenté tey ji seen plan la ñoom waaye li may wax rek du plan wu ñii toltolaan du plan wu mason yi du plan wu mécanicien yi du plan wu marchand ambulant yi waaye du plan wu menuisier yi plan boobu ñu gaaral tey jii plan la boo xam ne dañu ko tibbe te biir ne ñépp ñiy gëstu ne ci plan Macky Sall la ko copier muy plan Sénégal émergent dem nañu sax ba ci nañu ko pàcc pàccale ci juróomi at ak ci fukki at comme ay mbabba daara lañu jéemuñu ko soppar ñi sax noonu lañ ko ca bàyyee pour wane degré de nullardise bi nga xam ne moo nekk ci ñu li wóor mooy laaj bi sénégalais yépp di laaj xam ngeen ne moo taxoon ñu yóbbu ma ci alkaati yi chiffre ya ñu ma doon laaj moom laa dellu di laajte waaw li ñu ñu présenté tey fan lañu sukkandiku bëgg naa xam ndax ci chiffre ya ñu falsifié woon te génnagul foofu la sukkandiku wala chiffre ya nga xam ne moom la ñu yàgg a falsifié nee ña ñooy ca chiffres yooyu la ñu sukkandiku la question elle est extrêmement importante et war nañ ñu ci tontu chiffres yi ñu basé wu pour jox ñu projet Sénégal deux mille cinquante ndax ci chiffres yi Cour des comptes génneegul lañu ñu ko tibbe wala ndax ci chiffres yi Ousmane Sonko doon wax ne données yi ñu njublang la ca données yooyu lañu ñu tibbe yaakaar naa ne duñ ñu ci gaaw a tontu mais li wóor rek